corriger nag sérieusement f soo xoolee charte F24 il y a quatre points la ñuy xeex mais le point focal c'est le troisième mandat xam nga tey avant F24 jàmm moo fi nekkoon pourtant jàmm gën troisième mandat dañu ñëw ànd ak F24 parce que benn préoccupation jàmm gën troisième mandat mooy trois mandat wu pré troisième mandat Macky Sall déedéet F24 quatre ponk la dafa am non au mandat dafa am la libération des détenus politiques Politique. on a dit politique nag pas ñi nga xam ne ñooy yàq di casser et cetera beneen bi dafa am li ñu naan processus électoral et dans sa processus électoral y a le parrainage y a le fichier et cetera donc bul ne rek affaire troisième mandat la déedéet yeneen i ponk mu ngi ci et loolu mooy fondement wu F24. non yéen ci seen communication yéen a ko wax yéen yéen a wax ne que. le principal problème non man xam nga ma bëgg di dàgg. am du ma dàgg mais c'est juste dama lay relancer nga continuer. ci sa biir wax yow yaa fi wax léegi ne le principal problème mooy troisième mandat c'est pas moi qui le dis. su ma nee le principal. Euh, problème mooy troisième mandat tey jii président Macky Sall. bu waxee de manière claire et nette et précise ci troisième mandat bi ñu yàlla ne moom loolu la ñuy ñaar. mu wax ne du ci bokk dafay apaiser lu bari loolu laa la wax. d'accord dama ne la soo xoolee euh, fondement wu problème bi dëggantaan depuis Mathusalem c'est question de mandat parce que dafa am lu fi jaar a jaar a jaar tey jii su waxoon am. wax de manière claire nette et précise si troisième mandat mën na décrisper lu bari. d'accord mais fondement au F24 c'est les artifices yi ngay wax noonu les artifices juridiques politique yoo xam ne dañ ko utiliser pour éliminer des candidats. d'accord aujourd'hui de dialoguer pour que tey jii ki nga xam ne mooy Karim Wade ak Khalifa bokk ci ay élection parce que ban leen di éliminer dañ leen éliminer ci benn phrase boo xam ne dañoo changé moo tax ma ne loolu aussi dafa bokk ci combat yi nga xam ne tey ni ñuy confisquer liberté yi ni ñuy confisquer li nga xam ne citoyen dañ ko moom pour di nëq sa la di dindi ay candidats loolu la aussi dafa war a dakk